yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi wa sahlan wa tarxiiban bilaa adadi. man maa ngi tudd Modou Saliou fii fii fii ah, jóge jóge fii Télé ah, fii si si si jumaa ji doon teewlu waxtaan wi ba ñu dégloo waxtaan waxtaan wi jeex ci la. daayira mu mu xanu xaddim boo xam ne ah, chaque année ñoom dañ fi faral di def ay xéewal xéwal yu yu bakkane yoo xam ne même boo rekkul sa biir kër sa doo ko fa am moo tax à chaque fois bu ñëwee teelu waxtaan wi ba heure bi ñu ñëw toog euh, ànd ak ñoom bokk toog ak ñoom ndogu ba ndogu jot ñu ndogu bu ñu paree julli timis mën a eggaat sa daara ja waaw rafetlu ko rek rafetlu ko lool lool lool ndax euh, bépp taalibe bi fi nekk si biir si dëkk bi Euh, ñëpp ñu ngi ñëw commerçant yeeg euh, ñëpp ñoo xam ne ñu ngi nekkoon si wetu daara ji ñëpp ñu ngi ñëw di teew si biir jumaa ji di ñëw di barkelu si si si si ndogo yi lépp ñu ngi si sant bu baax a baax di ko rafetlu bu wér wér alhamdulilah di gën a ñaax ñëpp rek ndax lépp liggéeyal suñu tubaala la ndax euh, murit bu ne war na war na di di sàkku mbir yi ndax borom alal ñu ngi fi te li liggéeyal sunu borom la ndax nga ndogal benn jullit rek moom buy xam tuyaab yu nekk si biir kon ñu ngi si ñaax ñëpp képp koo xam ne nii sunu borom may na la xéwal ñu ngi ñaan nga ñëw jige daara ji jàppale leen may gis nii moom mosuma ko gis fenn ndax man Dakar laa nekk taalibe mu Moukhaddamatoul Khidma li ñuy def nii gisuma ko fenn ci Sénégal wax dëgg yàlla man doo ko naa fi ñetti fan ndax màggal sëñ ba léegi dinaa fi am ñetti li ñuy def nii wax dëgg yàlla liggéey la boo xam ne ñëpp war nañu toroy ndax fi ñu toll nii bu ñëw fii di nga di nga nga xam ne Serigne Touba du moromu kenn ci jumaa ji kon ñu ngi di sant bu baax baax ci lii nga xam ne ci ndigalu sëriñ bi lañ ko defee lii daal man kawe na man kon ñu ngi leen di ndokkeel di bu baax a baax ndax yoonu murid yi duñ bëgg nañ ko am dañ koy waxee ci Dakar lañ koy waxee fii mooy li nga xam ne dañuy def seen jëf ci weeru koor dañu xam ne lii mooy alal ndax fii lu ma junni nit da koy ëpp yoo xam ne dañ fi ndogu te noonu lañ ko defee ci Masalik loolu nag kon volontaire yi nga xam ne am nañu alal am nañu xewal lii rek mooy jëf lii rek lañ ci war a def ndax lii ku ko def rek defal nga ko yàlla defal nga ko yoon te sëñ Tuubaa nii la ko bëggee sëriñ Tuubaa léppam jàng la jaamu yàlla wax lu baax ak dimbale nit ñi ay weeru koor nga jël ndogu yu mat yi nga xam ne fi fi ne nii di ñu ndogoo fii lu ci bare bare bare am na ñoo xam ne ñu ngi seen kër duñ ko fa ndogu kon loolu wax dëgg yàlla nekk la lu jàngal bu am solo ñu bari ñu ngi ndogoo seen kër di ñuy ndogoo fii duñ ko ndogoo seen kër kon daayira bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax nag yoonu murit yëpp nga xam ne koo xam ne murit nga rek nga xam ne yaa ngi yëg sëñ Tuubaa da nga xam ne lii daal jëf sa ñaq moom moom waraf la moom ku am dara ci yoonu murit nga xam ne am na loo xam ne war nga koo def di ko di ko def ci weeru koor lii daal wax dëgg yàlla jaamu yàlla gu rëy la ku ci def dara doo ko réccu jërë ngeen jëf yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa adadi